xam tey jii nii euh, à l'heure du bilan du, du régime passé mhm. am na ay avancées yoo xam ne xëy na da ngeen ko war a consolider avec ce nouveau régime d'accord Podor ba mal dama nami Lamine mhm. Lamine Ba que je salue au passage alors euh, effectivement Podor va mal le Sénégal présent le Sénégal va mal jusqu'à mm -hmm. présent mais Podor va de mal en pis d'ailleurs la la preuve gis nga am na benn zone bu ñu woowee buubee mhm. zone boobu moom mooy zone pratiquement département Podor xam nga département Podor un département sur le plan agricole li muy produire ci bu état bi teyee tuuti mën nañ am autosuffisance alimentaire ci oignon waxuma la ci région naturelle du Fouta mais ci département de Podor rek mm-hmm. am na benn zone bu ñu ne buubee foofu la ñuy dajale soble gi yëpp bu ñu ko kii mais actuellement soble gaa ngi yàqu keroog moom bu mujjee a pas longtemps on saak bu doon jàll boo xamante ne ñoom bu ñu ci bëggee génn dëgg dañ daan jaay ba 8000 pour génn ci actuellement ils sont obligés de bazarder à 3000. Hmm? et dans quelque temps ils resteront euh, que munoo ko conserver lu yàgg day yàqu dafa gaaw a yàqu dafa dafa périssable te loolu vraiment cri de détresse la bu may mm. pour ñu jàppale ni à l'avenir parce que lii yëpp c'est les conséquences d'une mauvaise politique agricole mm-hmm. il faudrait que à l'avenir effectivement priorité yi Podor am mooy ces agriculteurs là il faut les protéger par rapport à leurs investissements mais mieux encore il faut les appuyer les aider et mm-hmm. ça et et et, ce que le président Ousmane euh, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko li ñu décidé. Mhm. mooy créer benn secrétaire d'état d'état boo xamante ni coopérative paysan lay doon te loolu booy fàttaliku Mamadou jaar loolu bëggoon initier fii dans les mhm. années 62. Mhm. et malheureusement. on lañ ko jox Alpha Ba je pense Alpha Ba Alpha Ba mon ami que je oui que je que je passage. et quelqu'un qui maîtrise ce domaine là. et je pense qu'avec cette coopération là et avec l'agriculture le le ministère de l' agriculture cette fois-ci boo xoolee programme projet bi ñu proposé c' que l' agriculture ce n' est plus une agriculture boo xamante ni saa yu mbay jotee nga jël tuuti wecc wala extra c' dépassé il faut aller vers une agriculture d' abord industrielle on a potentiel on a les terres dans le département de Podor des terres euh, cultivables à perte de vue mm-hmm. l'eau à perte de vue ce qu'il y a c'est qu'il faut s'organiser pour que ñu organiser agriculture ñu industrialiser ko ouais, surtout pour ñu mun ko transformer sur terre mais qu'on essaie à partir de cette industrialisation na assurer autosuffisance alimentaire ñu organiser benn transport boo xamante ni donc de tous ces produits là mu mën a daj ci Sénégal yëpp à telle mm-hmm. enseigne que un mm -hmm. le Séné le département de Podor sera le grenier agricole ce très possible et mm-hmm. à tous ces gens là qui depuis quelque temps la la notion de Fouta kii n'est pas dans le programme mais le département de Podor c'est j'ai lu en a parlé mais mais il s'est totalement voilà. il s'est totalement il parce que c'est pourquoi parce que Matam mm-hmm. à ce que je mooy mooy Fouta la Podor à ce que je sache Fouta la mm-hmm. d'ailleurs maatam est la seule région xam nga on a huit pôles de développement ouais. région bu nekk dañ ko boole ci benn pôle mm-hmm. la région de Matam est la seule région bu nekk ci ñaari pôle yu bokkul muy pôle muy pôle mooy pôle bu ferlo bi parce que ñu ngi ci zone sylvopastorale maatam da ci liggéey mais zone agricole bu de région de Saint-Louis ba nga xam ne ñun suñu département fa la nekk. Uh-huh. mais en même temps départ euh, euh, région de Matam ci côté ci côté phosphate yooyu dina dimbali côté ferlo bi et agriculture bi ñu war a. def uh-huh. ñu mel ne yow bu ñu